nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain ñoo ngi sant suñu borom subhaanahu wa taala di julli di selmal ci sunu yonant muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi ñaan sunu borom mbooloo mi ànd nekk ay jeune mën nañu wax ne presque ñëpp xaw a tolloo âge euh, dëgg la xëy na magante du ci ñàkk mais distance bi du rëy lool wala bi loolu am solo la ci ay jeunes yuy ànd parce que jeunesse dafa am solo ci société le grand philosophe Jean-Paul Sartre daana wax ni la jeunesse c' est l'âge de chaque individu jeunesse mooy âge or âge boo xam ne comme or la ci nit ki doomu aadama boo gis adunaam baax àllaaxiraam baax mooy fooyewul jeunesse am mais doomu aadama boo gis aduna adunaam yàqu balaa àllaaxiraam mooy dafa fooye jeunesse am fii sooy dox ci tali bi mag boo fi romb mu lay ñaan paas pour ñibbi Géejawaay cent franc yu mooy moment bi ni ñuy jàng jàngul moment bi ni ñuy wut métier wutul métier dafa foyee jeunesse am dafa nekkoon ci topp engouement bi topp xumbaay bi topp lu neex bakkanam âge âge bi di dem ba si guddeeg bëccëg di fi jaar di dem ba màgget te yëgul na màgget na affaire bi gaaw lool. te alayhi salaam dafa waxoon ne bokk na ci mandargay saa yi mu tuddoon bëri na waxoon na ne yaksurul harj dee dafay bëri yuqbadul ilm xam-xam dafay yéeg borom xam-xam yi la ñuy yëkkati benn par benn ñuy dem. ba borom xam su fi nekkatu dañuy jàpp ku réer jàppee ko borom xam di ko laaj muy ubbee di réer di réer laate mu ne wa taksiru zalazil tremblement de terre dafay bëri comme li ñuy gis actuellement hadis baa ngi ci sahih muslim hadisu jaabir tremblement de terre dafay bëri yemu fa mu ne wa yataqaarabu zaman jamono ji day gaaw vitesse bu diggi dayo la jamono ji dawee doomu aadama yi duñ ci bàyyi xel actuellement suñ la waxee un an day mel ni six mois six mois day mel ni quatre mois léegi semaine day mel ni quatre jours mois comme comme deux bu yàggul la tabaski jàll léegi ñu ne la tabaski 4 mois ci des wala 6 mois école bi mu tëjee yàggul école a ngi tëji léegi ñu naan la école kañ la ci semaine moo ci des c'est-à-dire lundi suba ne la toogal tuuti léegi nga dégg ne école 2 mois ci des mu tëj wa yataqaarabu zaman jamono ji day gaaw lu tax jamono ji di gaaw mooy aduna alaxira moo war a taxaw te alaxira buy taxaw course course lay doon jamono ji day gaaw pour yowmal xiyaam a taxaw loolu wax ci beneen xadis bi ne euh, euh, li nga xam ne mooy weer day mel ni semaine weer dafay mel ni semaine at dafay mel ni weer at dafay mel ni weer balaa yomal qiyaama taxaw noonu la yow da ngay xool actuellement da ngay màggal yëgoonoo ne yaa ngi màggal da ngay màggal te yëgoon yaa ngi màggal ne ba léegi xale nga boo xoolee say frère xel xool say sœur xool ñu fi juddu démb nga yëg ne yow nekkatoo xale affaire mi ngi daw daw bu gaaw a gaaw a gaaw da xool sa doom gis âge bi am nga xool sa doom mag bi mu juddoo yàggul bu ñu la waxee nga ne non pourtant kii barki démb la judd xoolal xale bi màgg na taxaw na mi ngi dox mën naa lekk mën naa waxi soxlaam soo ñëwee mu jaar sa tur des fois mu wax la xam ni da ngaan xale bi fan la ko jëlee jamono ji moo gaawee noonu doomu aadama yi bàyyi wuñ ci xel suñ borom subhanahu wa taala eh, bind doomu aadama doomu aadama ñëw ci kaw suuf yàlla di ko indil ay xéewal yoo xam ni xéewal yi day gën a mën a jàppandalal dund doomu aadama pour mu mën a dund ci apaisement tranquillité waaye yokku xam-xamam yokku eh, savoir am yokku science am yokku gëstoom mais mu gisee ci aussi kéemtaanu yàlla mu gisee ci kéemtaanu yàlla bi yàlla waxoon ni dinaa leen woon samay kéemtaan ci sama bopp ak ci seen bopp ñoom bañ xam ne yàlla mooy dëgg hatta yatabayyana lahum annahu alhaq euh, kéemtaan yi bokk na ci mooy li ñuy tuddee NTIC mooy les nouvelles technologies de l' information et de la communication dañoo toog jamono suñu borom def bokk na ci yi ci njëkk xew mooy rajo rajo bi muy door a xew boo laajoon mag ñi fii ñuy waxtaan ak yow dañ laa am na ñoo xam ne bi rajo xew fii Sénégal xaw na leen a dofloo ci année soixante soixante yi année cinquante yi yi booba da ngay jënd rajo wékku ko pour mu am parce que émetteurs yi amutoon doole gaa dañ ko doon wékk takk ko ci rajo takk ko ci garab da ngay ñëw di wax ak nit ki dégg rajo bi di wax nga naan ko kan mooy wax mu ne la lii wax fii la nekk nit ki day jàpp rajo bi di yëkkati di xool di wëlbati dégg baat bi wax xamul lan la am na ñoo xam ne loolu xaw na leen départ loo rajo dem ñu jékki-jékki télévision ñëw télévision ñëw nekk noir et blanc noir et blanc boobu ay yenn kër ñoo ko doon am pour nga seetaan yenn film yi wala yenn théâtre yi <clears throat> wala yenn téléfilm yi da ngay romb benn fenêtre wala benn boutique wala benn euh, tàngana wala benn restaurant gars yi rang fa di seetaan guddi nga naan lan la ci année quatre-vingt yi rek ñu ne la benn film la ñuy seetaan fi wala benn théâtre loolu ñu dem tuuti année quatre-vingt-dix yi télé couleur yi tàmbali tasaaroo ci dëkk bi bëri lool ñu dem ba kër gu nekk am télé da nga gis benn koñ benn kër fi am télé benn koñ benn kër fi am téléphone téléphone fixe laa wax woo téléphone koñ bi yëpp foofu la ñuy joxe seen numéro numéro ba la ñuy joxe bu ñu wootee dañ naan ko coupéel ñu wooyu ko mu coupé ñu dem wooyu ko mu ñëw toog di xaar ba téléphone bi ñëw ñu woo ko mu dem <coughs> lettre li fi xewoon mooy dañ daan bind lettre wala télégramme bind ko mu jógee France wala Amérique wala sax Côte d'Ivoire gi wala Mali mu war a ñëw Sénégal def ay jour accès su accès da nga koy jëli post boo ko jëlee da ngay xool ku ko liiral kan moo lay liiral lettre bi bu liir ko xamaale say secret <coughs> sa doom ko bind yónnee ne la dix mille francs wala quinze mille francs parce que booba loolu lañ doon yónnee te dafa bëri woon euh, ñu dema dem ba léegi yow téléphone bi nga am muy téléphone simple yi woon avant euh, smartphone yi di am bu la ci yónnee message yaa koy lire message gratuit la woon au début <coughs> début 2000 yi rek début 2000 yi message c'était gratuit da nga message gratuit di ko yónnee kenn du la ko facturé yónnee message bi nit ñi di ci ñu dem ba yàgg ñu facturé message message di yónnee gratuitement li ngay woon yu sax bëriwul message rek nga yónnee SMS SMS boobu nekkoon lu yéeme ci nit ñi mën a bind message mu àgg ci waa ji mu répondre la léegi ñu dem ba dépassé loolu ñu indi li ñu tuddee smartphone téléphone boo xam ni euh, la jiitu woon am mooy smartphone yi dañoo ñëw ànd ak lu ñuy tuddee Viber Viber xëy na ñu bëri ci yéen mën nañ ko xam nañ ko bañ a xam mais moo fi nekkoon ci début 2000 entre 2004 5 6 7 8 ba tuuti ci début 2010 Viber am doole loolu ñii di ko utiliser. mu nekk lu performant mook Telegram ñoo fi a euh, vibe boobu dem ba yàgg disparaître léegi société yi entreprise mag yi ñoo ko soxla pour ay mbir ñu indil ñu euh, WhatsApp mu nekk phénomène boo xam ne ak jeune génération bi tasaara na lu bëri. am na aussi mënuñu wax ne dafa bon carrément mënuñu wax ne dafa baax 100 pour cent dañ naan dafa am ñaar yëpp am na ci lu positif am na ci lu négatif luñ mën a jëriñoo la réseaux sociaux yi mais lu mën a yàq dundu doomu aadama la. mën naa yàq lu bëree bëri balaa balaa réseaux sociaux yi télévision rek def na ay dégâts télévision rajo def na ay dégâts parce que rajo dafa ñëwoon nekk information <clears throat> jàllale ay tàgge ainsi de suite ñu dem ba yàgg nit ñi dugal ci di ci teg ay musique gis koo xam ne rajoom da koy taal suba ba ngoon jot rajo bi di kandang kandangi ku bëgg a déglu musique déglu ku bëggul déglu déglu far force da la koy forcer da nga koy déglu euh, ñu dem ba yàgg télévision yi ñëw nga xam ne moo gën a performant fii baat la baat la ngay xool baat la rek da ngay dégg da dégg mais fii da ngay gis te image moo gën a fort écoute image moo gën a foor bët mbirum bët moo gën a frappant déglu nit ki li muy déglu baax na day def effet mais li muy xool di ko dégluwaale moo gën a fort ci ci biiram parce que ki muy xool day gis day gis jëmm ji day gis gesticulation bi ba pare image bi wax ji ànd ak image waa ji loolu moo gën a foor ci moom muy dégg te gisul télévision def ay dégâts. benn borom xam bu mag buy nettali benn xew-xew bu doy waar bu xew ci benn ci pays golfe benn waay bu fase jabaram ngi dafa am benn journaliste bu rafet bu génnee ci tele bi journal bi saa bu génnee di def di def euh, journal ndaw si muy muy jabaru waa ji day taxaw ci kanamu tele bi di xool waa ji yemu fa mu dem ba yàgg léegi waa ji koy fóon waa ji génne da koy fóon day fóon ci écran bi benn bis borom kër gi ne ci biir kër gi liggéeyiwul waa ji def journal euh, xale bi doomam bu jigéen waaxu ba ci télé bi di fóon waa ji papa ji ne ko looy def nii mu ko sama yaay bu waa génne nii lay def boo fi loolu moo jur ku góor kooku soxna am ci loolu. loolu jamonoy télé la de wax ma jamonoy internet jamonoy télé la dégâts yooyu tele def na ko kon yow looy xalaat ci looy xalaat ci réseaux sociaux yi internet bi loo ciy xalaat bu fekkee tele moo mën a def dégâts bi te tele dafa dafa nekk lu lu exposé wu loo xam ni na nëbbatuwul dafay nekk fii ñëpp teg ci seen bët li nga xam ne nag yow écran boo xam ne yaa ko yore yaa nekk sa poche yaay toog fii dem Amérique dem Australie. dem France dem Espagne wër monde bi ci guddi gi ñëwaat toog léegi xale bi mën a yor téléphone am tàggu papaam ak yaayam nekk ko maa ngi tëddi mu ne ko bonne nuit ba nuit xale bi dugg delloo buntam papa ji dugg delloo buntu néegam ci guddi gi xale gi dem fi Amérique ah dem fi Las Palmas dem fi Madrid dam fi Paris wàcc ba mu ko ñëwaat Dakar mu yeewu papaam yee ko nelaw nga mu ne ko waa nelaw naa te li li mu def ci guddi gi papaam xamu ko yaayam xamu ko moom ak yàlla kenn mënu ko xam loolu li muy wane mooy affaire bi dafa gën a dangereux dafa gën a garaaw lu tax mooy fi nga nekk dalaa mën a yóbbu fa sori te kenn mënu ko xam ku dul yow ak yàlla parent lu mu strict strict lu mu rigoureux rigoureux lu mu am rigueur ci wàllu éducation ak nouveau phénomène euh, réseaux sociaux yi ak téléphone yi euh, smartphone yi tactile yi li ko mën a rëcc éducation doomam dafa bëri vigilance bu mu mënti am doomam ki mën a waxal xamu parce que téléphone bi muy yor da ko codé téléphone bi muy yor da koy codé papa ji ci boppam su bëgg ubbi bi naan balaa muy ubbi téléphone bi su ko neexee effacer li muy effacer beneen bi mooy mën na ubbi téléphone bi mais ay message mën nga ko codé waat ko téléphone bi mën na am code mën na am code mën na am code whatsapp whatsapp bi mën nga codé message yi ko joxee nit ki téléphone su doon jéem accès sa whatsapp mënu ci accès parce que da nga ko mooy lan mooy confidentialité bi confidentiel bi ne ci biir daf jox daf lay jox euh, possibilité wu nga mën a nga mën a def ko mu nekk lu confidentiel lu am secret loo xam da nga koy defal code kenn du ci àgg moo tax phénomène bu doy waar la li may wax ni généralité laa doon wax ñëwaguma ci ahlu sunna généralité bi mooy phénomène bu doy waar la lu tax mooy li muy yàq bëri na téléphone bëri na njëriñ moo dala permettre nga yokk sa connaissance tey mën ngaa toog sa biir nekk di déglu dars wala déet mën ngaa nekk États-Unis ñu def fii xutba Sénégal comme heure yi bokkul décalage la yow heure xutba bi suñ ko defee direct yow mu nekk États-Unis mën nga ko seetaan direct parce que heure boobu yow day fekk julli goo jumaa yow mu nekk États-Unis bu day fekk julli nga jumaa ba pare kon <clears throat> mën nga toog jàng xam-xam mën nga seetaan jum xutba juma en direct comme yow mi nekk Sénégal ni nga seetaan xutba xutba juma en direct tey ci ci Màkka wala ci Médine kon côté positif bi bëri na mën nga ci def formation en ligne mën nga ci def vente en ligne jaay en ligne kon liñ ciy jëriñoo bëri na kon paaka ñaari boor la dafa am ay adraar dafa am ay ay ay mefe ma am ay manafe mais am na ay njëriñ yoo xam ne aussi doomu aadama mën na ko jëriñoo tey nit ñu ñu ngi ciy def vente en ligne vente en ligne bi sax bu yàggee dafay changé tey am na ay am na ay application yoo xam ne WhatsApp mi ngi ciy liggéey ak yeneen société mook Telegram yoo xam ne waxatuñ vente en ligne mais boutique en ligne mooy am su kanamee boutique en ligne lan mooy boutique en ligne mooy ci biir logiciel WhatsApp bi wala Telegram bi da nga ciy mën a am sa boutique yow boutique boo xam ne boutique en ligne la boutique bi mooy da ngay mën a exposer sa marchandise mu nekk ci ay ci ay ndudati euh, étagère nga ko mu nekk ci image nga wane ko nga jël ci biir i foto yi nga photo mu may la possibilité nga mën ko ranger ci biir étagère ci biir WhatsApp bi nga mën ko teg nit ñi di xool étagère bi lii moo ci nekk étagère bi lii moo ci nekk étagère bi lii moo ci nekk wane li ngay jaay foofu lañ jëm ba tax na phénomène bi am mooy nga xam ne kuy jaay tey da ngay da ngay louer cantine wala louer boutique wala magasin di fay lu cher cent cinquante mille deux cent mille fii ak dix ans day disparaître su disparaître su fekkee disparaître tamit dana wàññeeku trop pour nga rombati ko yor boutique di jaay di louer di fay day jafe lu tax mooy nekkatul vente en ligne mais boutique en ligne mooy ñëw boutique en ligne yooyu foofu la lay yóbbu mooy da am possibilité wu am boutique ci biir sa programme WhatsApp wala sa programme Telegram am étagère exposé marchandise photo ko teg fa di jaay nit nekk fu sori di gis def commande fay en ligne nga daal di koy livrer loolu li muy tekki mooy boutique yi dafay disparaître ak yeneen yu bëri yoo xam dafay disparaître léegi nga jël téléphone téléphone jëmmi téléphone ci boppam téléphone rey na rajo kañ ngeen gën a déglu rajo yéen téléphone rey na télé kañ ngeen gën a seetaan télé toog concentré wu télé di seetaan te yaa ngi am information yi te seetaanoo télé yaa ngi am information seetaanoo rajo mooy téléphone laa waxuma internet rek mais jëmmi téléphone yi yi xew yi éliminé na pourcentage bi ñu doon seetaan télé pourcentage ñu doon déglu rajo léegi boo wax seetaan télé ak déglu rajo peut-être troisième âge maa génn ñooy toog di concentré wu seetaan télé yow même boo doon seetaan télé da nga naan rajo moom xalaatoo déglu ko peut-être accidentellement accidentellement mooy da ngay toog fu takku rajo nga déglu wala nga dugg ci oto déglu mais revue de presse mën nga ko déglu sa téléphone information yi nga soxla mën nga ko seetaan sa téléphone président Sénégal mi ngi États-Unis ñu bëri ci yéen seetaanuñ téléphone seetaanuñ télé wala ñu déglu rajo mais information yi fa xew ndax um, ump na nit fu ko nit ñi amee <clears throat> nit ñi fan lañ ko amee à partir de téléphone yi benn détail rëccul nit ñi te ñu bëri seetaanuñ ko télé bala am yoo xam ne sax duñ ko wane. ba doon seetaan am télé yoo xam ne boo fa xaaree doo ko fa gis mais nit ñi am nañ information lu tax moo koy am en temps réel bi après dañ koy préparé ñoom teg ko balaa télé bi di ko teg yow information bi dañ koy am en temps réel télé bi mu koy jàllale journal ngoonam yow am nga ko en temps réel loo koy deewaatee journal ngoon toog di yàqaat temps di ko seetaan te am ko en temps soxla woo ko kon nga gis ni évolution bu doy waar la téléphone def mooy fexe na ba éliminer rajo éliminer télé ordinateur téléphone mi ngi koy éliminer ndànk-ndànk tey lu bëree bëri la doon def ci ordinateur da nga def ci ah yenn façon téléphone yi tey Samsung Galaxy S20 plus yi wala iPhone 13 euh, yi daanaka soxlawul boo ko amee presque soxla woo parce que jiga boo xam ne yii dem na cent 128 yii dem na cent bu dee fees nga doon xalaat peut-être du feesati wala pour mu fees ah pour nga feesal ko dina yéex ah mémoire bi am na capacité am na am na proposition génneel la euh, dërët génne la clavier nga liggéey am na fu mu lay proposé nga denc ko ci mémoire bi ci carte bi wala ci iCloud bi kon nga gis ne affaire bi am na évolution bu day waar day éliminer ndànk-ndànk doomu aadama mën ci jëriñu mën ci jàng xam-xam xam-xama mën ci yokk xam-xamu adunaam mën ci yokk te yu bëri ci science mën nga ko xam à partir de téléphone yi tey am na université en ligne université en ligne yoo xam ne ngay toog jàng ba am licence wala master wala master nga def sa doctorat te bougé woo nga koy def kon am na njëriñ bu baax a baax mais mi ngi yàq <clears throat> yàqu googu <clears throat> waxuma yàqu ci wàllu population sénégalaise bi généralement mais ba ci biir ahlu sunna dégâts yu doy waar yu bëree bari naka ngay imaginer jigéen joo xam ne nee nga da ngay dund sunna yow nga xëy nga xëy jël sa téléphone di dem marché wane sa pañe bi ngay nduggee ji xool leen sama pañe bi pañe bi unique la xool leen couleur bi nangam ak nangam ñu moo ma ko yónnee ba Espagne ñu na déet. marché bi ngay dem bala nga àgg nit ñi xam nañ ko marché tal laa jël tey lii laay ndugg wax nga li ngay ndugg xool leen sama yéet bi xool leen sama carotte bi xool leen sama ñaambi bi tey sama sama sama sama ah, sama añ bi tey du neex dara yemoo fa li nga dugg lépp bët teg na ko bët yi bët yi gis nañ ko yaa ko filmé def ko statut def ko profil ñëw dugg ci waañ bi sama cin bi dama kaa raxas tey ba ba muy muy melax nangam laa ko raxase sama togg bi nangam ñëw teg gaz bi ba ngay teg diwlin bi nangam laa natt nangam teg bi ngay wëlbati bi ngay jéq bi ngay xorom lépp yaa ngi koy filme léegi yow bala ngaa yekk nit ñi lekk nañ li nga doon togg bala ngaa yekk nit ñi lekk nañ ko ba pare bët yi lekk nañ ko am na ñoo xam ne taxamtiku nañ ba pare léegi nga yekk yemoo fa jël li nga lal ak li nga togg yëpp daal di koy photo wàccee sa page Facebook ñu ne déet nga def ko sa profile ah sama togg tey bi neexul deret yàpp bi nii laa ko def laal rek mu topp la comme ginaar wax a wax a wax ba jeexal fàtte ni yonent bi alayhi dafa ñëw moytuloo ñun xeetu lislaam ci làmmiñ ak bët yow ñu ne la da war a nëbbatu bët war a moytu làmmiñ wax ci yow nga ne maa ngi nii exposé sa bopp nga gis nit koo xam ni day am tudd war a tudd doomam généralement góor ñi dinañ koy def mais jigéen ñi la gën a feebar boobu ci ñoom la gën a nekk jigéen gi hôpital lay commencé am na ñoo xam hôpital la ñuy filmer seen doom photo photo ko xool leen sama bébé bi bi dafa rafet ku mu nga xool noo def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 ñu ngi am ay shayatin ñu ngi daanu te kenn xamul lan la xamuñu fa leen shayatin toppee rek ñoom ñoo yombalal ñoo ko facilitel seytaane yi ñoo yombalal seytaane yi ñu mën leen attaqué mën leen jàpp saggane seen i askar ba pare di exposer sa bopp jamono ju nekk nag jamono ju ju ju ju jafe mucc la parce que li ngay def day mel ni soo ko wanewul defoo dara seytaane moo naan la affaire bi wane ko xam nga dem ba ci kaaba gi di aj màkka jaamu yàlla yàlla tax ngay def nit ñi taxuñu ngay def nga exposer sa bopp laal naa kaaba gi laal kaaba bokkul ci ponk bokkul ci sunnay aj màkk ñu ngi fay xuloo sénégalais yi chaque fois boo fa nekkee yow dañ laa sant nga daw safa ak marwa ah wër kaaba gi julli ci maqaamu ibrahim sànd ji jamra yooyu mooy yi nga xam ne moom lañ la sant yeneen yoo fi def lu dul loolu rek yaa ngi exposé sa bopp yaa ngi def loo xam ne aussi du noonu moo tax lu wat a bàyyi xel la jaamu yàlla yu bëri mi ngi yàqu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 maanaam bu ñuy àgg du ñuy saak bi dara du ci nekk parce que saag bee bënn moo tax saa éviter dañ moytu saag yi bënn yaa ngi def lu baax mais doo doo ko jëriñoo yor saag di for du am njëriñ di ci def mais mënoo ko jëriñoo dañu bëri tey seen saak bënn na mooy bëgg feeñ bi bëgg exposé rawatina jeune génération bi mooy génération 2000 génération 2000 génération problème la génération wifi génération connexion ku ci toog 24 heures amoo connexion xaw a dof fan yi ñu fi coupé connexion yi.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 li ñuy toléré ñenn ñi kenn duñ ko toléré li ñuy may ñenn ñi kenn duñu ko may sa génération bi nekk ci ay groupe whatsapp ay góor ak jigéen di jëlante ay numéro téléphone ci suuf di wootante di yónnante ay message jigéen mën a jël ay photo am di ko yónni góor parce que góor ki moo ne ko danga maa neex damaa toll fu mu war a soxna dama la dama laa gis bëgg laa labat alors ka dara du ji dëgg dara séré wu ci foo ak caaxaan ak bànneexu ci photo jigéen baatu jigéen ci suuf la te xam nga ne ngay def baaxut ngay nax bopp te yàlla mënoo ko nax yàlla waxoon na ci naafiq yi dañuy jéem nax yàlla waaye seen bopp la ñuy nax te jikko boobu dafa bokk ci jikkoy naafiq mooy di jéem a nax yàlla parce que yàlla mënoo koo nax mais da ngay jéem naafiq yi xam nañ ñoom mënuñu ko mais dañ doon jéem yu xaadiwoon allah yàlla wax yu xaadiwoon allah maanaam dañuy def mu xaadaa mooy jéem a naxaate yàlla waxul yaxdauna naxa boo waxoon yaxda mooy dañuy nax yàlla mais yàlla am na ku ko mën a nax koo xam ne yaalamu xaainatul aayuni wa ma tux fi sudur li na ci ginnaaw bët bi fii xam na ko avant ngay yow booy waaj a xool dara balaa ngay xool xam ne yàlla xamoon na li nga war a xool xam na li nekk fii benn li nga ëmb sa dënd ah balaa nga koy génnee yàlla xam na ko kooku fan ngay jaar ba dribble ko fooy jaar ci digg bi walla ci ali munoo jaar fenn munoo jaar fenn comme munoo jaar fenn nag li la li la jub mooy nga sérieux beneen bi mooy lu lu bon boo koy def tôt ou tard day feeñ lu bon yàlla mën na laa may diire nag mu yàgg pour xool la ndax da ngay reculer ndax da ngay tuub. ndax sa conscience sa damir dina la waar nga xam ni man mi def naa erreur parce que nul n'est parfait kenn matut waaye njumte li ma tàbbi yëg naa ne njumte li ma tàbbi du nii xaaral ma reculer boo reculer wul yàlla mayaat la chance reculer wu mayaat la chance mais day toll foo xam ne nag yàlla moo naan la doy na comme yow xamoo doy na yàlla moo naan la doy na yàlla moo lay weer yàlla moo lay feeñal exposé mbir mu feeñ na faa nga nag nga taf gémmiñ wala ngay daw nit ñi wala ngay làqatu wala doo ñëw fekkee benn benn activité lu tax moo yaa tooñ sa bopp yaa ko yóbbee sa bopp yàlla mayoon na la chance bu yàgg pour nga tuub pour nga génn ci li nga nekk mais nga topp sa bànneexu bakkan seytaane di la gën a dugal naa la dara nekku ci affaire bi dara nekku ci te yaa gën xam ne dara ngi ci parce que li ngay def ñi ma woo ko feeñal ñi ma woo ko feeñal te tey jeune génération bii nii ñu ci bëri tey ci groupe bi ñu ngi def loolu ñun ñi nga xam ni ñun dañoo jàppee ay sapeur pompier sapeur pompier moom seen seen sigle mooy sauver ou périr des fois ñu sauver des fois affaire bi périr ah gars yi nekk benn affaire ba affaire yi sori wala ba dagaa di waaj am ñu wala téléphone oustaz dañ laa soxla dañ laa bëggoon seet lu xew ñu ne non dafa am benn affaire bu bu sérieux ko wala benn affaire bu garaaw bu ñëwee bu ñu la waxee yow da ngay taf sa nopp da nga est-ce que naa am quoi lu mel nii ndax mën naa am lu mel nii ndax mën naa am lan moo leen ko yóbbee ku ci nekk boo ko dégloo mu lay nga xam ne li mu lay dara dara tegewu ci topp bànneexu bakkan kese moo ci nekk topp bànneexu bakkan yooyu bu ñu bëggee wax ci ci ci lu sérieux mooy nobante mi ngi am ci réseaux sociaux yi ci nobante boo xam ne teguwul ci yoon nga nobante bu tegee ci yoon am na ma gis ki nga xam da nga ko bëgg nga dem ci ay parents dox farata dox fulla wax leen sa bëgg-bëgg wax leen sa intention ñu nangul la wala ñu bañ laa nangul buñ la nangulee nga xam ne loolu la yàlla dogal nga jaar fi nga war a jaar ñu may leen ñu may leen ñu wala ñu may la seen doom nga takk ko ci farata yàlla ak sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam mais nabante googu dafa doy waar beneen bi dafa jéggi sax ñi nga xam ne takk guñu soxna mais dañ ko am dafa takk soxna ba pare takk soxna ba pare jël beneen xale bu jigéen ci suuf di waxtaan ak moom pour ne da koy labat te sérieuxwul foo moo ko tax a jóg jigéen ñi nooy bopp bëgg jëkkër bëgg sëy jaral leen ku ñëw ne la bëgg naa la ñu ubbi la buntu yi suñ ko moytuwul ay dégâts la ñuy indil te dégâts yoo xam ni li mën a yàq ci daawa bi kenn xamul lu muy jëriñ gis nga daawa bi ci gën a gaaw mooy di wax mais comportement bu rafet ak melokaan ak jëflante euh, Omar ibn Abdul Aziz ni ko borom taarixu Baghdad nettale alxatibul Baghdadi nee na bi mu njëkkee gis alxasanul basri gis xasan ñëw Medine gis ko ñu yend ñoom ñaar mu gis xasan bu ñëwee heure julli ni muy teel a ñëwee dugg génn jàkka ji bu génnee ni ko gars yi di toppee wër ko kii di laaj gauche ki di laaj droite ñi nekk ci kanamam xasan di tontu fii tontu fii tontu. mu ne kii mooy kan ñu ne ko kii mooy alxasanul basri mu ne kii mooy xasanul basri mi may dégg ñu ne ko waaw mu ne allahu akbar moom dafa takbiir moom Omar ibn Abdul Aziz mu ne ud'u naasa wa antum saamitun dee leen woo nit ñi ci seen comportement ngeen noppi saa ngeen wax saa ngeen wax léegi jigéen joo xam ni da nga koo dig sëy di ko labat ngeen di caaxaan ci réseaux sociaux yi yàlla def takkoo ko nga takk keneen moom mu dem moom mu dem sëy keneen su ngeen daje we nan lay demee. suñ ko laajee ci yow ci comportement bu rafet moom lan lay wax yow suñ la laajee ci moom ci comportement comportement bu rafet lan lay wax imagine nga demoon ba takk soxna sax yow bàyyi nga ko kenn ñëw di laaj ci moom da kaa bëgg a jël soxna yow looy wax lan ngay wax bu fekkee sérieux nga sincère nga jigéen ki la même chose moo tax charia xamul lu fulu diine lu leer la xam alayhi salaatu salaam bi mu nekkee di itikaaf soxnaam Xafsa seet si ko si jàkka ji indil ko lekk guddi mu génn di ko gunge ñu taxaw ci buntu jàkka ji di wax ak moom Anas nee na ñaari saxaaba romb yonent bi xool ko gis ko mu taxaw jigéen ñu wiiri na le sës fële ci sàkket bi di mu leen ay eh, kaay leen kaay leen ala rislikuma kaay leen kaay yéen lu tax doxu leen normal ngeen ñëw ba ma di di tafu fële di di di lëndëmal di dem ak di jéem a mel ni gisu leen ma kaay leen yow mu leen kii Xafsa la sama soxna ñu ne ko ah subhanallah yonent bi ku mel ni yow dina ñaaw njortu ci yow mu ne déedéet seetaan dafa yàq xel moo tax ma bëgg mu leer seen bopp moo tax mu bëgg mu leer seen bopp moo tax nit ki lépp luy indi fulu ci sa mbir lu indi ay lënt ko nga dox ci loo xam ne lu leer la loo xam ni leera ne kii farata moo la yëkkati caaxaanoo lu sérieux la charia du la ko tere ma nga nekk lu sérieux sa diggante yàlla nga ragal yàlla bala ngay ragal nit ñi waaw yii di xew yu mën a indi yu doy waar la léegi léeg ñu ne la am na góor goo xam ne balaa muy takk soxna diw wala léeg-léeg ñu ne la góor goo xam ni da doon labat soxna diw mayuñu ko ko mais ñoom ñaar dañ daan wax téléphone ba une heure du matin ba deux heures du matin loolu ban lay nga koy layele foo koy teg ci diine fan nga koy teg ci diine ne diine nangu na ko fan waxtaan ak doomu jaambur góor ak jigéen waxtaan ba une heure du matin deux heures du matin yooyu nga yaakaar ne toj-toj ci wax wax yooyu génn ci toj-toj yi ci mën a jaar ñaata toj-toj la kenn xamul nu mu toll góor góor la jigéen jigéen la te diggante góor ak jigéen dafa am ay sensibilité dafa am dafa nekk lu sensible nit ki mënoo man damaa wóor sa bopp 100 pour cent da nga sunu borom moo gën a xam nit ba gis nga njaalo li tubaab bi waxoon ne dafa dafa j'ai cherché tout le Coran mais j'ai pas vu là où a interdit la fornication nee xool na alxuraan ba mu jeex mais gisul fu yàlla araamalee njaalo lan moo tax moo yàlla waxul fenn ci alxuraan wala taznu bu leen njaalo mais yàlla bi mu koy araamal expression bi mu utilisé moo a garaw lan la wax ah la taqrabu zina baatu taqrabu a jëfandikoo bu leen jege su ma la waxee sama kër a ngi nii may la sama buntu kër bu ko jege sori sama buntu kër ma ñëw fekk la ci biir saal bi nga toog moo ñëw ne la saa waay yow yow lu xew dama laa waxoon sama buntu kër bu ko jege nga ne ma noonu rek maa waxoon bul jege waaye waxuma nga dem yàlla bu ne jege nga ne man gisuma fu yàlla araamalee njaalo bu yàlla waxoon bu leen njaalo nit dafa day waar. wa kaana insaanu aksara shay'in jadala nit dafa mën a werante boo ne A mu ne Z boo nee E mu ne F du nangu day wër-wër la ko léegi yàlla moom xam na ne nit mënu koo war wërloo mu tëj bunt bi léegi bu yàlla na woon bu leen jaalo da ngay gis benn waa di dégg naan saa waay da ngeen métti quoi yàlla waxul buleen leen jege sa yoon yow yàlla bu leen jaalo la wax jaalo léegi yàlla bu leen jege far tej bunt bi benn yoon parce que bu woon bu leen naa na sawa yàlla njaalo la tere de yi ngeen wax ni yëpp amul ci yàlla njaalo la tere nañ dem ci alxuraan yàlla njaalo la tere mais yàlla waxul bu leen jege yàlla waxul bu leen waxtaan yàlla waxul bu leen bu leen jëlante contact yàlla waxul nangam yàlla waxul nangam yéen yéen ko fi indi mais yàlla bu leen yàlla wax léegi teg boobu ne bu jege bu yàlla fa xam nit léegi tëj buntu bi yëpp mu jeex nga xam ne de boo boo doon da nga naan da koo miine miine dafa miine foofu ah militaire dañ daf ko miine lu tax mooy relation diggante góor ak jigéen ci charia dafa nekk relation bu clair bu lëndëm relation bu leer nañ bu fekkee ne relation bi leerul rek caaxaan dugg ci seytaane am ci wàll regret mën cee nekk loolu moo tax relation bu nit amag am ak góor góor bu mu am moroomu moromu jigéenam wala jigéen bu mu am ak morom góoram na nekk relation bu leer mu am jeu de cache-cache mu am laqatu bu mu am ay jël ci suuf yooyu saa éviter bokk nag li ko facilité mooy maturité bi ñu waroo bi waroon a am ci ñu bëri ci seen génération bi dafa manqué ñoom dañoo ñëw màgg fekk li am formation bi ñu war a am ci daaw bi des na jonjo gi ñu war a jonjo borom xam-xam bi des na beneen bi aussi mooy dañoo topp fougue de la jeunesse ni ñu doon nekkee jeune nekkee woon ko en dehors de la sunna ñoo dugg sunna presque li ci changé à part muraay bi ak jéem a jàng bi lu ci changé bëriwul comportement yam doon am nam da doon utiliser téléphone avant muy dugg sunna bi mu ñëwee noon la ko utiliser ñam doon waxal loolu lay waxal moo tax loolu dañ cee war a dimbali suñu bopp ñun mais dimbali ci suñu mbokk jigéen euh, te loolu ni muy amee mooy groupe yëpp ay waxtaan di ci am yu demee nii leeral ne relation góor ak jigéen ci charia nii la rawatina relation bi war a am ci réseaux sociaux yi kenn terewul. góor xam jigéen kenn terewu ko kenn terewul ñu seq ay relation waxtaan relation jàmm ak salaam relation lu aju ci wàllu liggéeyal daaw bi kenn terewu ko mais mu yem foofu mu yem foofu relation caaxaan bañ cee dugg relation sentiment su ci dugg na nekk lu sérieux na nekk lu sérieux te mu bañ a yàgg bu yàggee aussi ay dégâts def def nekk relation bu sérieux ba pare bañ a yàgg bu la leeree ni yow pare woo pour takk soxna. bul jël numéro téléphone jigéen di ko ay waxi labat ay waxi dama laa bëgg ay waxi sa jikko damaa doy sa diine damaa doy bëggoon naa ñëw seen kër un nga jàdd seen kër lu ñor nga woote lu ñorul nga woote dama doon xool ndax yeewu nga si jàmm sa yoon nekku ci yooyu sa yoon newu ci bu yeewoo ci jàmm yeewul ci jàmm loolu yow yaa koy lijjanti am na ay parents yaay ma ngi fi papa ma ngi fi bu feebaree dinañ ko yóbbu hôpital bu waree ko faju ah yooyu sa yoon newu ci boo amee ay mbokk yu jigéen yoo xam ni xam nga leen ah damaa déggoon diw dafa dafa feebar ndax seeti ngeen ko seeti nañ ko nga am nouvelle mi ngi tane ah alhamdulilah ñoom ñoo ko war a seeti nañ ko seeti waaye damaa déggoon da ngaa feebar ñëw jàdd seeti si fi est ce que seq ngeen ko sequ leen ko loolu dafay dem ba léeg-léeg yu day waar am na benn mbokk boo xam ni dafa am benn mbokk bu doon labat benn mbokk bu jigéen gars yi wax ci jikkoom ak yooyu fekk ma moo ngi ci jotaay mu ne kooku ku ragal yàlla ku baax la maa ngi moom ñoroon doon ànd ko doon jëli di ko yóbbu xiyaamul layli doomu jaamur xiyaamu layl une heure du matin deux heures du matin kan moo la jàddaloo seen kër jëlloo la ko naan la da nga koy yóbbu moom mu am am pap am yaay am ay frère am mbokk jigéen yu mën a àndal te xiyaamu layl du force à force jàkkee lañ ko war a defee su ko neexee defee ko seen kër. léegi imaginel góor ak jigéen ñu ànd deux heures du matin ne dañuy dund sunna ku góor ki moo jël si ku jigéen da koy yóbbu dañuy ànd xiyaam bu paree moo koy delloo ngeen jàpp ne normal la hmm? bëgg lu baax ak fi carrément bëgg lu baax la ak xër mais su bëggee lu baax ak xër da nga koy teg ci xam-xam kam min muridi lil xayri lañ yanaalahu ci beneen riwaaya lañ yusibahu bëri waa na ko bëgg lu baax mais jaarul ci yoon bi jaarul ci yoon bi moo tax ñemente bi des fois dalay dalay dalay jaaxal sa génération bi dañoo ñemente góor ñeeg jigéen ñi et programme bu amay góor ak jigéen ànd lan la ñuy ànd na dem yoonam jigéen dem yoonam loolu moo am en tout cas ñi fi jaar ci mag ñi loolu la ñu xam mais góor ak jigéen ànd bi pour lan la jigéen ñi xamuñu yoon bi mënuñoo dem mënuñu jël oto xamuñu ligne yi ban mooy dem ak bu dul dem xamuñu ko dafa am insécurité bu tax ñu war leen a xaar bu fekkoon insécurité am na d' accord mais am na insécurité bu tax ñu war leen a xaar xaar wala ñàkk stabilité bu tax ñu war leen a xaar léegi miinante boobu ñemente boobu lan lay indi mooy yebante da ngay gis ku góor koo xam ne ak ku jigéen koo xam ne dañoo respecté woon lool da ngay jékki ku jigéen ki sànni ko benn tur da ngay tiit wooyee ko benn tur bu defee muy xool mbooloo mi wala ku góor ki jékki-jékki wooyee ku jigéen ki benn tur bu ko defee moom it muy xool gauche droite mel ni fekk moom fekk yooyu saa éviter lu tax mooy miinante miinante bu bu bu bu jéggi dayo moo koy indi chaque jour gisante chaque jour wootante téléphone chaque jour SMS chaque jour daje chaque jour jàdd seet loolu miinante bu ëpp lay indi miinante bu ëpp boobu su amee rek dégâts yi lay jur mooy da ngay dem ba ñeme nit ki da nga ko rusool mais léegi boo koy xool danga nga koy fixé te bu doon xool day sëgg mais da nga koy fixé fixé la carrément naan la da ngaa ñaq ak sa ñaq bek sa mbaxna bi dafa weng ak lu ci sa yoon léegi ñeme woo ko woon wax mais dangaa dema dem ba ñeme ko lu tax nga ñeme ko daa am foo départ di ñëw ah, di daw di daw di daw di daw cinq cinq la woon wala zéro cinq dix cent léegi deux cent à l'heure léegi dangaa ñëw ba ñeme nit ki miin ko lépp nga koy wax amatoo frontière ci moom amatoo looy rus ci moom wala looy ragal ci moom lépp nga koy wax loo bëgg a wax da nga koy wax dégg ba àgg ci di ko wax loo xam ne waroo ko wax da soof ak waaw est-ce que ngeen ko ñeme wala ko woon wax da ngaa soof lu tax mu ñeme la kaa wax léegi am na de mooy am na travail de coulisse boo am ci suuf boo xam ne moo am am ba miñante am ba mu ñeme laa wax yow da ngaa soof ñemewu la ko woon wax te xalaatu ko woon mais yaa ko ubbil bunt yabante gi miinante gi ñemente gi yow it yaa wala ñàkk fayda wàccee sa personnalité wàccee sa bopp di wax ay wax yu ñàkk fayda bam mu yab la loolu lay indi moo tax sa éviter suñ ci teelul jog mën naa indi dégâts yu bëree bëri conférence yu am ñu def groupe ànd pour lan dem conférence daa ja groupe ànd dem dars groupe góor ak jigéen pour lan la da ngaa a ngaa war a jëli dars xam nga heure dars bi nga koy defee xam nga place bi bu jotee jëlal sa bagage nga ko góor jigéen jëlal nga dem dama fi doon jàdd xool ndax pare ci bàyyi ko mu defi darsam yow soo ko labodoon sa bañ ne la suba lañ koy may amoo droit def si loolu parce que daganagu la jigéenu jàmbur la ci yow jàmbur jàmbur la ci yow moo tax nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax bu dul loolu waaleykum salaam dana yàq lu bëri parce bi ñu def ay at def ko ci école yi def ko ci lycée yi def ko ci université yi def ko ci terrain bi te nga xam ni discours daawa bi dafa dafa leer xam-xame xam-xame ànd ak audace ànd ak ñeme ah waaye neexa a dégg neex dégg tey bu la neexee nga ni réseaux sociaux yi li ci ahlu sunna ji jëriñoo kenn xamut nu mu toll barki démb la woon ajjuma ñaata xutba ñoo wàcc yu ahlu sunna ci ci groupe yi ñaata groupe gis naa benn mbokk bu ne ma moom am na quinze groupes yoo xam ni chaque ajuma de xutba yëpp da koy wàccee tasaare ko ci imaginal benn mbokk am 15 groupes boo jëloon groupe bu ahlu sunna yëpp ñaata groupe la ajuma ajuma soo jëlee ajuma ba yi wàcc ñaata ba la ci ahlu sunna ci Dakar ak bi ci dakaar ñaata la xam ngeen nu mu toll kenn xamul nu mu toll léegi loolu ñaata ñoo ci gisee njub dem samedi bi ñaata ay mbokk ñoo def ay waxtaan mu wàcc ay groupe def ay bayaan ci ay groupe whatsapp mais def ay waxtaan ak i conférence ay bërëb mu wàcc ñaata la moment bi may wax ak yow ni dimanche bi tey xam naa ñetti oustaz yi conférence bi di Dakar tey ñett li ma xamul moo ëpp loolu bu pare gaa yi wàcceeku yi direct yi en yi yii gars yi wàccee audio yi gars yi wàccee vidéo yi mu wàcc ci ay wàcc ci réseau yi léegi nga xool lundi am na mbokk yi dars oustaz yu ñuy wàccee mardi am na ay dars yu ñuy wàccee mercredi jeudi ba vendredi ñëwaat ajuma xutba yi wàccaat léegi loolu liggéey boobu noonu ngeen yaakaar ni liggéey bu tuuti la ahlu sunna ni ñu occupé réseaux sociaux yi di ci jëriñu ak di ci jëriñaate wallahi kenn xamul nu mu toll loolu li mu jur mooy ñu bëri ñu ngi gis sunna tey à travers TikTok dagg yi mbokk yi dagg audio yi di ko dagg ah wala vidéo yi wàccee audio yi wàccee xutba yi wàccee dars yi kenn xamul lu muy liggéey nga xam ne tey borom xam ahlu sunna ñoo gën a am présence tey ci réseaux sociaux yi si gisaaka nekku ci foo jaar danga koy yëg foo dugg da koy sentir ne nit ñi ñu ngi topp affaire bi topp bu day waar da ngay dem ay place ñu lay interpellé place yoo xam ne da nga yaakaar ne fii kenn xamula ñu lay interpellé lan lay wane mooy daaw bu dox daaw bu dox bu doy waar barki dem laay dox fii dajeeg benn waay mu ne ma ñu daje mu tëf fël sama loxo ma taxaw mu ma ah imaam yow la ma ne ko ah, luy imaam yow la mu ne non daa ku may seetaan quoi dafa mel ni yow ma ne ko kan ngay seetaan kan la nu mu tudd mu ne ma du jàllo ma ne ko waa benn ngi nii de mooy waaw li ngay maa lay seetaan mais nangam mais na affaire yonent yi ngay tudd soo ko mënoon bàyyi ma xam fi mu bokk. <coughs> li wax lépp am na xam am na solo mais affaire yonent yi moom soo ci génnoon rek bàyyi ku nekk gëm lim gëm ma xam dèjà waa ji fi mu bokk. ma ne loolu may wax noonu du sama wax du sama wax de man tooguma rek di kéré samay wax di wax de damay wax li yàlla wax rek ak yonent bi jottali ko loolu moom mooy pas-pas julit bi jaadu te yow soo bëggee texe àdduna ak àllaaxira loolu nga war a gëm. mooy yonent yàlla Muhammad mooy yonent mu ci jamono mu ne loolu moom waa baax na jërëjëf damaat arrière mën naa am sa numéro ma ne ko bismillah jëlal li ngay sentir kon mooy daaw baa ngi dox ci vitesse bu doy waar bu doy waar boo xam ni ñeneen ñi sax daf leen jaaxal quoi daf leen jaaxal ñoom fa la ñuy jaar ba freiné lii fa la ñuy jaar ba freiné ko xamuñu ko parce que bu dee xutba yi am solo ahlu sunna ñoo ko fi am daas tafsir ñen ñoo ko am fii kan moo fi tafsir daas hadis kan kan moo fi jàngal daas tawhid Daara Tawhid kat moo ko fi jàngale Daara Siira Daara Siira boo ko déggee rek mooy période bii la du sax Daara Siira du sax Daara Siira mais événement Siira la événement Siira mais Daara Siira kat moo ko fi def am nañ événement Siira mais ahlu na ñoom am nañ Daara Siira boo xam ni 365 euh, jours yi ci 365 dañ koy def Daara Fiq kat moo ko fi jàngale Fiq kat moo ko fi jàngale tayib yooyu yëpp nga jël ko tey nga gis ne kon liggéey bu colossal la ahlu sunna def. ak présence bu jéggi dayoo boo xam ni réseaux sociaux yi liñ ciy liggéey amul keneen ku koy jariño ku koy liggéey yow da ngay gis waa joo xam ne dundul sax sunna benn waaye wax benn toj-toj moom mu jël benn vidéo wala benn audio benn borom xam ahlu sunna kole ko bu koy teggi teg fële te moom dundul sunna de mais moom dafa gis ne waa ji li mu wax tegewul rek li mu wax tegewul loolu tey amul kër gooy dem tey amul quartier booy dem amul service booy dem amul entreprise booy dem amul usine booy dem amul école booy dem te sunna nekku fa na partout sunna fépp partout fépp la na nekk waaw ah, loolu kon soo ko gisee bu amee ay déchets yu ndaw yi ne ci suuf ay mbalit yu ndaw ay yàqu-yàqu yu ndaw yoo xam ne pexe seetaane la ak ñàkk compréhension ak affaire jeunesse la nar koo yàq dañ ko war a gaaw téye orienté waat ko ku ci mën dara mu def ko ku mën a wax mu wax ku mën a wax mu wax ku mën a fàttali mu fàttali ku mën a jël responsabilité am mu jël responsabilité am parce que travail bu colossal lañ def pour agsi fii nii pour agsi bu baax a baax même ñi nekkul ci sunna tey nangu nañ ne sunna mooy dëgg dafa am tey ñu ñu tuddee sunna am ñu tuddee sympathisant man a laa la ñu tuddee d'après ni ma leen di gise da ngay dem xutba benn jàkka tey point e, wala nga dem ci milieu intellectuel yi dafa bayaan bu demee ni jàkka Mermoz wala fenn nga gis ay intellectuel ay ancien ambassadeur ay ancien procureur gis ay ancien magistrat yoo xam ne li ngay wax dañ ciy adhéré cent pour cent dañ ciy adhéré cent pour cent gis ne discours bi ñoom dañ ci gis seen bopp ñooñu doo leen tuddee sunnit mais ay sympathisant lañ discours sunna rek la ñuy moo léegi mënatuñ déglu parce que beneen discours bi dara newu fa li fa nekk mooy jël àqu yàlla jox ko àqu nit yëkkati keneen ci kaw yonent bi ah wax yoo xam ne yu rëy la sos boo waxee dëgg yokk ci lu dul noonu dolli ci loo xam ne pour gaa yi daanu ñi ñi ñi fotos ñi yëkkati tànk alors que sunna texte bi ñim ñëwee noonu lañ koy waxee duñ ci yokk duñ ci wàññi duñ gonfale duñ gonfale duñ xool lu neex nit donc loolu mooy li nga xam ni euh, borom xam-xam yi liggéey nañ ko ci daawaay ba mu agsi fii moo tax jeune génération bi wara a góorgóorlu ci conservé loolu bañ ko yàq conserver ko bañ koo yàq sunna bi buñ ci dugal folklore sunna xamul folklore li sénégalais di wax lu xumb te dagan l'islam lu dagan moo ci am lu xumb amu ci ku bëgg lu xumb bu ko sotti sunna dama seeti ko feneen sunna amul lu xumb lu dagan a ci nekk ku bëgg lu da ngay dem feneen gaa yi am nañ lu xumb ñoom tëgg ak fecc ak wëlbati koog péri jalañ am na mais loolu amul ci sunna sunna lu dagan moo fi am kuy wut lu dagan ñëwal boo ci nekkee da ngay bàyyi lu xaraam def lu normal wax lu jub nekk ci istixaama maanaam correct am droiture droiture ci wax droiture ci comportement droiture ci jaamu yàlla droiture ci pas-pas droiture ci lante lii rek ci ngay dox suba ngoon gudd amul leneen amul baatin amul zahir li ngay gis noonu la mel. li ñuy wane ci kaw moo ne ci biir amul lu ñuy nëbb amul loo xam ne ñoom rek suñ nekkee dañ koy nëbb seen biir la bu keneen ñëwee am lu luñ koy won lu wuteeg liñ doon wane déedéet li ñuy wane nii nii ni ñu mel nii keneen bu ñëwoon loolu la fiy fekk amul lu ñuy nëbb ci biir amul. loolu moo tax ci génération bi jàpp naa li ko yokk nag mooy ñàkk jàng bi moo dañu nekk ci sunna ni di dund di góorgóorlu fekkee programme mais jànguñu koñ gu nekk ña fa nekk suñ góorgóorloo génération ya fa nekk ci xale yi ñuy jàng jéem am programme mu jàng ay dars jokkoo ak borom xam-xam yi jonjoog ñoom jël ay cours organiser ko jàkka yi ahlu sunna yor daar ñu fay def ñu dem di ko fekkee heure yu bëri mën naa wàññeeku parce que temps bu bëri bi ñuy passé ci réseau yi da yàq lu bëree bëri day koo xam day publier dara da ngay yow da ngay posé wu question nit ku normal waxuma la sax ku dund sud mais ku normal naka la mën a defee genre publication bu demee nii wane loo xam ne amul bopp amul genn ak sa yëfu personnel di ko exposé pour lan la pour lan la yonent bi alayhi salaam nee na aksaru ma yamuutu min ummati min al ayn li ëpp liy faat sama xeet li leen di faat mooy cat cat mooy bët wala làmmiñ yow sa lépp nga exposé ko wane sa bopp ci lépp nag mooy li ma waxoon sànq say togg ak say lekk ak say naan ak ji yoo servir say gan ah tiisi boo war a sol tay ak yooyu yëpp nga exposé ko dàll yi la jox yëpp nga exposé ko bët di ko gis léegi loolu mën na laa yàqal lu bëree bëri parce que innal ayna xaqun la alayhi salaatu salaam wax cat dëgg la làmmiñ dëgg la te am na bët yoo xam ne bu ñu xoolee wala am na làmmiñ yoo xam ne suñu waxee ah soo góorgóorlu ci say askar beleen de woo respecté woo say askar mën naa am effet su amee effet mën na laa yàqal parce que cat li muy yàq dafa bëri làmmiñ li fi yàq li muy yàq dafa bëri te comme alayhi salaatu salaam du waxtu te nee na cat dëgg la làmmiñ dëgg la ah da ngay moytu làmmiñ mooy ci cat ci naka mooy baña a feeñ lu bëri bañ a exposé sa bopp lu bëri am discrétion totale même sooy feeñ it fekk na ci lu mën ta ñàkk na mais du yow yaa exposé sa bopp du yaa forcé nit ñi sa bopp mais forcé nit ñi sa bopp foo toll ku xëy réseau yi ku ubbi gis la TikTok wala tey jigéen ñi li ñuy def yor di filmer sa bopp ne ci TikTok bi di imiter xusar yi di jàng pour lan la am nañ xusar yi ba pare dañ la soxla xusar yi mi ngi fi kay yow soxla wuñ la léegi yow le fet que nga toog di imiter xusar yi pour lan la wane sa bopp la ne man maa ngi nii yow jàngoo xusar yi mooy jàng dèjà léegi pour wane sa image rek la ak yaa ngi imiter loolu def ko sa biir kër ak sa njaboot ak sa waa kër ñu xam ne yow daa ngi imiter xusar yi jeex na mais foog nga won ko nit ba pare forte ko chaque jour nga wàccee benn jour nga wàccee benn pour lan la. vraiment lu lu lu lu lu lu lu xaw a bizarre la lool lool des fois nit ki dafay nekk ci dund sunna mais encadrement sunna bi mu war am amu ko parce que boo dund sunna sa waa kër dunduñu ko say parents dunduñu ko yow si jikko yi ne ci yow kenn du la wax bàyyi kenn du la wax sa waa kër dañu jàpp ne li nga def nii normal la parce que yow yaa ngi góorgóorlu ci diine bu la gisee ngay toog di filmer sa bopp TikTok di imiter xusar yi pour ñoom sax lu normal la yaa ngi góorgóorlu lii lu baax la fekk ne li ngay def dara baaxu ci jigéen li muy toog di imiter xusar yi di TikTok xusar yi mi ngi jàng ñun ñu ngi dégg jàngam lu ñu soxla ci yow sa image lu mu fi wut yow wala foog nga forcé ñu sa image maa ngi nii forcé boobu moo mën a ñàkk ak wane sa bopp boobu waaw bëgg gis leen ma bëgg feeñ leen ma bi bëgg gis leen ma bi ak bëgg feeñ bi dafa yàqal lu bëree bëri euh, ndaw ñi rawatina jeune génération bi ni mu amee ci góor ñi amee ci jigéen ñi góor goo xam ne chaque chaque jour mu feeñ moom lu jar a feeñ mu feeñ lu jarta mu feeñ exposé bu bëri bi dañ koy wàññi booy mën ta feeñ booy feeñ na nekk lu am njëriñ nga xam ne bu ñëwee vraiment ñi di nga xam ne lii am na njëriñ te it sa bopp taxul taxul nekkul sa bopp ngay wane yow mais li tax nga jóg lu am njëriñ la loo xam ni doom aadama yi ku ko déglu wala ku ko seetaan mën na ci jëriñu mën na ci gindeeku bu baax a baax a baax loolu moom la ñuy xaar mais taw rek di wone sa bopp mën na ñàkk la gis góor bu jigéen ñoo xam ni dañuy dem xew nuróole ay jilbaab di ko filmer di wane pour lan ñoo nekk nii ñoo mel nii ñu ngi nii xool leen ñu la yooyu moom lañ war a bàyyi kon feeñ bu bëri bi esthétique yu bëri yi euh, profil yu bëri Euh, feeñ bu bari bi dañ ko wàññi waxante ak góor ñi discussion yoo xam ne yëpp ci ay ndobante la dañ ko éviter loolu amul place ci sunna su fi su fi ñëwee rek dañ ko cee indi lu fi ñoox la lu fi bees la luñ indi la amu fi place te li muy yàq moo ëpp li muy defar sunna ki koy dund ma ko waxee woon sànq dégât bu ndaw bu mu def walla njuumte bu ndaw bu mu def dëgg la mën na kaa tuub diggante ak boromam mais su àggee ci nopp nit ñi moom ban valeur lay amati pourtant moo fi doon méttil de naan du jox góor loxo moo fi doon wax du jox jigéen loxo de moo fi doon wax nangam ak nangam du déglu musique de xoolal li mu def lii ak déglu musique lan moo gën a woyof loolu lañ fay loolu foofu ngay mujjee lii ak joxoon jigéen loxo lan moo gën a woyof foofu ngay mujjee moo tax nit ki da koy éviter gars yi dañ lay surveiller ba duñ la may dara nit ñi dañoo am jotu nga ne suñu laay dund ñu bàyyi la xel yow gis nga boo dundul sunna jaaral fii nga dem kenn xoolu la seen yoon newu ci ah saa waay est-ce que jaalul mais boo dund sunna boo génnee dañuy xam génn nga boo duggee ñu xam dugg nga boo foo taxaw ñu xam yaa fa taxaw dañ lay bàyyi xel 100 pour cent dañ lay bàyyi xel moo tax comme dañ lay bàyyi xel nag yow bàyyil xel yàlla yow dañ lay bàyyi xel yow bu leen bàyyi xel de mais bàyyil xel yàlla parce que boo bàyyee xel yàlla moo gën a fort julit bi su bàyyee xel yàlla loolu lu màgg la moom yàlla lay sóoraale bu ñu fi tegoon caméra caméra de surveillance du ko bàyyi xel parce que yàlla gën a fort moom caméra de surveillance bi courant mën naa coupé mën naa paan mën naa fulu mais yàlla moom mi ngi fi jógewu fi mi ngi lay teg bët mi ngi lay tax nit ki fexe ba salaahul baatin tolloog salaahu zahir maanaam biti gi li ne ci bitti mooy feeñ ci kaw wala sax lu raw lu ko raw mooy feeñ loolu dafa baax ci nit ki sa salaam dafa waxoon ni zul wajhayni laa yakunu wajihan inda allah borom ñaari kanam du am kanam fa yàlla su nekkee nit ñi mooy kooku jikko naa feq la bu ñëwee ci yàlla a ah, du fa texe du fa texe kon ñu góorgóorluwaat yar ndaw ñi ci jàng fekkee programme yi mais réseaux sociaux ñu jëriñoo ko ci loo xam ni daf ñuy jëriñ suñu diine jëriñ suñu àdduna jëriñ suñu àllaaxira mu bañ a nekk ay caaxaan baña nekk ay nobanteeg jëlante ci suuf waxante tasaare ay photo envoyante ay vidéo ainsi de suite nañ ci bàyyi xel bu baax a baax loolu jiguñu ñun jiguñu du suñu yëf ku ko defit yaa ngi suñu biir waaye li ngay def àndut ak àndut ak li ñuy dund ñun mën ngaa nekk ci biir nag mais li ngay def àndut ak li ñuy dund te gaawal nga bàyyi gaawal nga tuub balaa muy trop parce que yàlla nag de yàlla yumhil maanaam yàlla dafa mën a seetaan lu tax mooy borom bi doomu aadama jaamam dina ci toroxtaange wala gàcce wala ñu koy rusloo yàlla bëggul loolu moo da lay may chance may la chance mai la chance yu bëree bëree bëri moo tax Ibnul Qayyim mu ne unwaanu saada ñett la loolu la Cheikh Mouhamad Ibn Abdul Wahab jël indi ko ci introduction qawaidul arbaa mais du waxu Muhammad ibn Abdul Wahab donte waxul na ci ibnu Qayyim la ko jëlee mais ci ibnu Qayyim la ko jëlee dafa wax ne ñett la mooy ashukru inda niam bu la yàlla dafa lay xéwal nga sant am na ci nit ñoo xam bu la yàlla lay xéwal duñ sant mukk pour ñoom dañ koo mérito suñu admis woon fi benn concours au lieu ñu sant yàlla non booy jàng bi ma jàng xamoon naa damay admis am na ku jànguloo raw li nga jàng te admis wul di mbir mi lan la moo sunu borom la xéwal la. moo yàlla bu la defalee xéewal santal xéewalu wér yaram santal xéewalu wërsëg santal xéewalu xam-xam santal xéewalu sunna santal xéewalu nekk siraatal mustaqim santal te sunna xéewal la da yaaxi laa ilaa sunna xéewal la xoolal fan yii rek ngay xam ne sunna xéewal la événement yi day jàll ay ree da lay jàpp nekk sunna dafa neex sa day sakkan bala ngaa financé da ngay financé lu lu jar a financé sa temps day sakkan day gars yi di yàq seen temps loo xam ni yow sa temps nga ko jàng réviser ay masala réviser ay téere lire ay téere ah nekk ci programme delluwaat ci aay yi xool tafsir ni ko borom xam firé ngir ñeen ci mën a génne delluwaat ci xadis yi jàngataat ko da nga jëriñ baax gis gars yi nekk ci programme yoo xam ni ma anzalallahu biha min sultaan consacré wu pour liggéeyal benn famille benn njaboot boo am benn sant ci loolu ngay consacré wu di leen liggéeyal nekk suba ngoon ba bëccëg li ngay dox yëpp du yàlla mais pour benn famille am benn sant ñoom ngay li ñoom ngay doxal ñoom ngay def ay va et vient ci ñoom seen service nga nekk nekkoo yow sa service famille nekkoo ci service yàlla service famille jàmbur nga nekk. sunna moo la mën a épargner loolu moo tax sunna foog mu nekk lu élément perturbateur foog mu nekk cible à battre mu nekk lu dérangeant aussi quoi ndaxte dafa yàqal ñu bëree bëree bëri sunna ku muy leer sa bopp nga yew te boo yeewoo am na ñoo xam ne dañuy ñàkk élément moo tax saa bu yàlla dafa lay xéewal sant ko xéewal yi nag bokk na ci nekk ci sunna sant yàlla jigéen santal yàlla góor gu nekk ci sunna santal yàlla da nga war a sant yàlla mooy yàlla dafa lay épargne yu bëree bëree bëri bokkaale bida ay sos ay caaxaan ah ay dajaloo yoo xam ne dajaloo lekk ak la ci turu diina te diina da cee set wecc comme ni yëre Yuusuf ba setee woon ci deretu till ba yow nga war sant yàlla ci loolu bu baax a baax a a baax lii wax dëgg yàlla hidaaya hidaaya muy njub ci loxo yàlla nekk kon xéewalu sunna gi dañ koy sant yàlla te sant yàlla gi mooy ñu jëfe ci li ci yàlla bëgg li yàlla tere ñu daal di bàyyi noonu mooy sant yàlla ci sunna gi bokk na ci lam ci tuddoon mooy asabru indal ibtila bu la yàlla nattoo nga muñ ñi ñi ñëpp yàlla ñoo nattoo ñu dund ak famille dund ak njaboot dund ak société boo xam ne dund ñu sunna il faut nga muñ des fois dañ lay saaga nga rek mu saaga la <laughs> nga xam li ko naqari continuer def sa liggéey fu wax dara des fois nga romb nit mu ciibatu la des fois nga romb nit mu xeelu la ah fois nga gis koo xam ni euh, su la mënoon rey da rey wala déet kon yooyu yëpp mi ngi fi mais yàlla bu bindee foog ay coono ak muñ ak nattu am mais nattu yi muñ ko muñ gi nga koy muñ ibada la innama yuwaffa sabirun ajrahum bi xayri xisaab wasbir wa ma sabruka illa billah wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin ma yamkur mimma yamkurun inna allaha ma'a allazina taqaw wallazina hum muhsinun kon muñ gi ci boppam muñ ibada la il faut nit ñi xam ne muñ ibada la ni julli nekkee jaamu yàlla muñ noon la nekkee jaamu yàlla muñ gi ngay muñ difficulté yi ak métier yi suñu borom da la koy fay tuyaaba muy ñaar ñetteel bi mooy al istighfaru wa tawbatu inda al wuqu'i fil ma fil maasi zunub mooy doomu aadama bi yàlla bind mënoo ñàkk def bàkkaar dafa nga xool la warta xool no dafa nga déglu warta déglu dafa nga laal la warta laal des fois nga xalaat sax loo xam ni da nga cee ni nga ko xalaatee noonu da nga cee ñaaw njort moo tax borom bi ne walazina ida faalu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru llaha fastaghfaru li zunubihim wa man yaghfiru zunuba illa allah walam yusirru ala ma faalu wa hum yaalamun nga xam suñ defee bàkkaar gis nga buñ defee bàkkaar wax luñ warta wax wax kuñ warta waxal def luñ buñ defee bàkkaar dinañ tuub mais day jël temps dañuy toog toog pour ñoom defuñu bàkkaar pour ñoom def nañ bàkkaar mais yàlla baax na pour ñoom non dinaa tuub dinaa taswif taswif ba keroog mën nañu tub mun nañu bañ a tub parce que yàlla bu dee jël du tàggu moo tax tub dañ koy gaawe yàlla yàlla defal tawfiq yàlla defal leen ko yàlla sàmm ñu sàmm leen ñu bàyyi waat xel suñu taxawaay ci biir réseaux sociaux yi bu baax a baax su ñuy frère encadré suñuy sœur ci ñu jëriñoo ko ci loo xam ni njëriñu aduna la ak njëriñu àllaaxira mu bañ leen a yàqal seen adduna bañ leen a yàqal seen diine bañ leen yàqal li nga xam ne mooy suñu àllaaxira jigéen ñi nañ wàññi photo yu bëri photo profil yi wàññi photo yi ci statut yi bu baax a baax di wane seen bopp wane seen njaboot yonent bi alayhi salaam nee na ñu moytu cat te mooy bët yu bët ak làmmiñ làmmiñ yu bëri yu wax ci yow ak bët yu bëri yu lay xool te exposé sa bopp loolu la lay jural waxaat na ne li ëpp lay rey sama xeet cat la te bokk na li nga xam ne moo koy wane wala li koy yokk mooy di exposé sa bopp ñu mën fuñ toll mën laa gis wala man laa xool ci anam boo xam ne mënoon naa ñàkk waxuñu anam bu mënta ñàkk mais anam boo xam ne vraiment c'était pas nécessaire mënoon naa ñàkk jigéen ñi nañ gën a beru en tant que jigéen di def seen liggéey li mënta ñàkk ñu mën koo seq góor ñu seq ak ñoom wàññi ñemente bi diggante góor ñi ak jigéen ñi ñemente bi ñemente bi yabante bi miinante bi miinante bi nañ ko wàññi trop de miinante dégâts lay indi trop de yabante dégâts lay indi baaxul nañ koy éviter bu baax a baax yàlla nga defal tawfiq dafa leen ko hada wallahu aalam wa sallallahu wa ala nabina muhammad wa alihi wa sahbi ajmain wa salaamu